exclusivité à l'observateur kenn déggu leen si mais Mel Talla Sylla demam daal da leen yëngal lan moo xew. Talla la wax ci moom sax yenn saay yi duñ ci sawar ndax xam nga workat traitre moom honnêtement bëggu ñuy sori ci ay mbiram mais lenn rek moo ma jaaxal mooy ñun avant ñuy def Talla la meeru Thiès ñëpp dañ ñu avertiroon ni bu leen ko def ndax daleen di wor. ku ne avertir na Idrissa Seck ku ne wax nañu Idrissa ni moom kàddoom soo ko joxee ba pare jeex na du ci ñëwaat kon moom wàcc na ak moom. beneen bi mooy Idrissa Seck nee na dafa bëggoon a wane ku ànd ak moom wut ba am su amee dina la sedd suñu gañee ñeenti mairie yi ñu ne Thiès ak conseil départemental dan rafetoon na ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun ñu sedd leen kon ñun wàcc nañoo ñi ñu seqaloon ñëpp. def ay adjoint maire yu bokkul ak ñun parti lépp def nañ ko ñu ni taala comme personnalité mag yàgg na politique boobu ba léegi ci dara ñu ne nañ ko jox mairie bi Idriss ne ma yow da ngay ñëw ànd ak man conseil départemental ndax fu ma nekk dangay ngay ne sama ñu jox ko dégg naa ko mu wax ñaari mbir nee na yàlla moo ko fal yàlla dafa ni su ma jaaralee teraanga ci nit ba mu egsi ci yow. li nga warloog moom mooy orma ak reconnaissance soo ko deful ci kooku ma sa ngërëm Touba lañ jógee Touba lan moo fa am cant lu ñuy sant ànd ak suñ tu suñ Touba dafa ni nañ ko santale suñu borom ak Seydina Mohamed ndax si yàlla suñ si Seydina Mohamed la jaarale ci la jaarit ba egg suñu borom Cheikh Béthio ni kaa leen santal ma sëñ Saliou ndax ci moom la yàlla jaarale man li ma am kon su doon murit gi muy wax. mu ci moom war fa war xam ni ci Idriss Seck mm-hmm, mm-hmm. cant la war a amel Idriss Seck ak ngërëm mm-hmm. mais pas ay xalab wala di ko jéem a xas xanaa tey la gis benno ba naan day lëkkaloog bennoo pour xeex Idriss Seck su doon bennoo wala moom du nekk conseil sax bay nekk maire élection yi dix mille voix la ñu rawee bennoo ñun Thiès dix mille voix la ñu rawee kon ñun dañoo wàcc taala beneen bi xam nga wor dafa am ay catégorie comme gore rek ni mu ba amee ay catégorie mais wor gi mu wor moom waru pur sang lay wor ndax mën naa ni jéem a poignarde Idriss Seck ci dóo la mais dafa xamul waa Thiès ak Idriss Seck waa Thiès dañu am yaakaar am yéene ci président Idriss mooy dañu am yéene am yaakaar président Idriss Seck nekk président du Sénégal ndax dafa tàmbali liggéey boo xam ni ci Sénégal ak ci ci Thiès ak ci Sénégal xam nañ ni li koy eggale mooy Idriss Seck nekk président de la République te loolu Thiessois yi loolooy seen rêve kon jéem a def leneen c'est aller jéem a la jéem a xeex jéem a nasaxal effort yi nga xam ni sacrifice yi nga xam ni Thiessois yi ko doon def ay mun naa ni ay at at kon Talla dafa réer. mais bokk nga si ñu wax ne pour que moom mu dem ci logique am bi dafa war a delloo mairie ville bi Idrissa Seck loolu. non non man waxuma loolu xam nga question de personnalité la c'est que man su may àndañ ak nit dem ba aw ma gis amatu bokkatuñu gis-gis. wala am naa yeneen damay jël samay responsabilité soo ma dénkoon dara ma ne ko téye ko delloo la ko ñun duñ ko xeex duñ ko bloqué conseil nii rien dañu bëgg rek mu liggéeyal waa cees mais dañoo seetlu bi fi taale nekkee ba léegi wax la gën a ëpp li muy def ka jëf tey maa ngi nii deuxième fois ma ñëw hôpital régional di leen defal don médicament ay vingt deux millions benn man bu mu def rek gisuma ko su dee dëkk bi cet gi maa ko fi indi mooy ak waa UDE cinq ans may xeex ak état Sénégal ba ñu indi ko fi def fi six cent millions mooy nettoiement dëkk bi dëkk bi set wecc su fekkente ne lamp yi ñoo ko def tëli yi banque jox ñu trois milliards deux cent ñoo ko fi def boobu ba léegi wax leen ñu benn tëli benn mètre tëli bu ñu fi def benn pot lampe bu bees benn camion camion yi ma jëlee woon France sax Sergi dañoo paan ba mu jugee mairie ba léegi rek wéeru ci programme bi ma fi indi woon or programme boobu daf ne woon da ñoom dañuy nettoyer waa mairie bi tamit di nettoyer. wa te Idrissa déedéet déedéet tooñul non maa ngi kon nit liggéeyal waa Thiès ndax li ma def tey kon na liggéey la ndax ñun dañu nekk ndaw ne ci wetu di takk suñu ndigg di liggéeyal askan wi ci wetu Idrissa Seck ci ay directive am ñun loolu la ñu nàmpal loolu la ñu jàngal ñun jàng lu ñu wax de jëf la ñu jàngal te yàlla nag du fay du fay wax di bàyyi jëf kon Talla day il perd son temps non non non amul kenn responsable ñi nga xam ni am nañu symbolisme ci ànd ak Idriss Seck ku beddi Idriss Seck dama ànd ak Talla Maïmouna Dieng n'est pas un symbole dans non non Papis Ndoye se l'ami de Idriss Seck te autre chose la mais Maïmouna n'est pas kii Soxna Ndiaye mii moo ko indiwoon si Idriss Seck kon Maïmouna bi muy ñëw demb ba ma koy installé ak waa m ak ñoom ma fa yi mais démb la. kon ñun du du boo xam ne mën nañu am. lenn non non jigéen bu ndekk nekk maire parce que rek Idriss Seck bëggoon na sargal jigéen ñi jaarale ko ci moom. Idriss Seck nag non non du tout Idriss moo ko désigné woon moo ko désigné woon pour mën a récompenser les femmes donc moo tax mais tey femmes yi mën a nekk maire ci Thiès kenn xamu nu mu toll gis ngeen leen aussi bien ville commune d'arrondissement yi qu'au niveau du conseil départemental kon ñun dañoo wàcc ak ñi ñu amal ñëpp nit ñi nag ñoo am ku nekk question de la mais ñun suñu ngor ak suñu diine dañ koy sàmm nee naa ko Idriss Seck d'ailleurs su may dégg taal di wax si moom sax dama naan xamul ki muy waxal ndax Idriss Seck sell na set na également kenn du ko tudd ci yi nga xam ni tey moom la ñuy tudd jëmale ko ci mairie bi ci maire bi ñun yàlla suturaal nañ ci loolu. defe naa ni waa Thiès sax am na war nañ am gàcc tey am maire boo xam ne ñu ngi koy tudd ci ayib yoo xam ni rus naa sax di ko nettali fii. kon ñun yàlla suturaal nañ ci loolu te sutura boobu la ñuy ñaan suñu yàlla mu sax ak waa Thiès ba li ñuy yóotu ci bopp réew mi ñu jot ko jàpp. merci bi mu wax nag suuf si moom euh, léegi moom lañ ko jox. Euh, débat bi commencé na mais kenn déggul leen. non ñun mais ñun xam nga ñun non non non xam nga xam nga nit da ngay gore. <laughs> ñun audit foncier boobu xam nga tous les jours état bi daf ñuy auditer ñun at bu ne dañuy auditer mais également li mu xamul ñun bi ñuy jógee mairie ministre euh, nu mu tudd. non non ministre de l'urbanisme autorisé woon na ma 780 parcelles yi muy xëccoog mairie depuis 2012 ñu am suñu ngor daan lépp dañ koy jaarale ci yoon comme d'habitude bàyyil ko ko tey muy xëccoog ñoom mais ñun kon ñun ñi nga xam ne ñun lañ ko depuis 2012 suñu doom defoon ni moom kon joxe nañ ko bu yàgg mais lépp ci yoon lañ koy teg audit foncier ba tous les jours état bi dañu auditer ndax ñun lu ñu def ci foncier gouverneur lay njëkk autorisé commission régionale ministre autoriseur chef de service urbanisme domaine. def rey réunion ñu daal di joxe préfet approuvé defe naa nit ñi xamul affaire suuf ni ñu koy joxee ñoom ñooy ne fii di commenter mais mais audit foncier boobu kon moom xëccoo lay wax rek ci mbiru moo ak maire d'arrondissement yi mais defe naa ni ñoom nekkatuma maire man président laa léegi ñoom seen guy seen cëggal guy bàyyi naa leen ko nuñ ko rek lay baax waaw